mën a la ku la jëppi am na ñoo xam ne tey ils ont sanctionné le président Macky mais parce que fi ñu dëkk gox bi ñu dëkk am na leader politique boo xam ne bu rombee du leen nuyu vitre teintée buñ ko wooyee téléphone du leen faale. ñu def vote sanction buñ ko envoyé ñu ñu ne xaaral ñu gàttal mbir mi ndax waa ji euh, toog et tu vas voir moi je connais des DG yoo xam ne ni bu doon nekkutoon Macky Sall duñ liggéey dans la vie. est-ce que loolu moo tax ngeen ñàkk pouvoir bi. je ne sais pas xam nga man je yàlla baax na dama lay ñaan rek bëgguma du dugg si ay nit di wax si ay nit xam nga lu ma gëm. non pas ay nit mais analyse générale. oui oui analyse générale moo tax tey jii mën na leen. le conséquences parce que nañu am ngeen bilan. les conséquences seront très lourdes xam nga bu bilan matériel dafa am bilan matériel. ak bilan immatériel. le bilan immatériel est très est moral yaa ngi wax waxu foncier waxu gouvernance la justice tout ça. mais munoo fu nekk ñu dënk la ndombal tànk ngay tojee di am ay milliards yoo xam ne ni ñu naan waaye non on gère comment on gère ça au moment où des Sénégalais sont dans dans le monde rural qui meurent de de de de de faim qui de soif da leen ëppale ci alal bi. kon bilan immatériel bi. mais moo tax ma ne la y' a un bilan matériel y' a bilan immatériel te tey jii yàlla rek moo fi ne yàlla rek moo mën. moo tax la défaite dama koy nangu accepté ko tey bu amadu baa jàlloon tey ñii nga xam ne ñu ngi leen di cité dans les rapports là di nga gis ñu bari ñuy continuer di ànd ak Amadou Ba yàlla nee na ko stop je sauve le Sénégal lecture boobu tamit am naa ko ci. lecture boobu nga ci am. looloo tax aujourd'hui mën na la ah man de Sénégal moom ma ñor. Sénégal la ñor kon yow looy wax ñoom Ousmane Sonko pour dellu si fi ñu nekkoon bu leen siis. comme waa APR ni bu ñu tëju bu ñu tëju. doyloo seen bopp ouverture nañu def ouverture mais ñu xool bu baax fu ñuy teg seen tànk aussi. ñan la ñuy àndal. c'est-à-dire que mënoo def ouverture et puis tu reçois n'importe qui. ah nag boo koy def nag. soxla nga dof soxla nga dof. nga façon nit bu ne. il faut un tout waaye il faut avoir la tête sur les épaules. pour nga xam kan mooy kan ak kan nga war a dénk. responsabilité. La responsabilité, elle est très lourde. La responsabilité, elle lourde. si lu si nekk dafa bari tey jii sa aljana ça dépend même de ça. Oui. parce que ñiy jàng alxuraan ñu ngi wax saraxatul jaariya. maanaam boo doon fay. lépp loo xam ne def nga ko lu baax. amal yàlla na jariñ nit ñi kon moo tax ma ne il faut servir et non se servir c'est important c'est important très important kon bilan immatériel bi bokk na ci euh, la gouvernance ak yooyu on en parle justement parce que président Bassirou Diomaye Faye itam euh, reddition des comptes moom la wax gis nañu ne santaane na ñu publier les rapports rapport yooyu tam bi mu génnee franchement wane na ay scandale waaw mais xam nga tey la reddition des comptes fait partie de la bonne gouvernance tey bu fekkee da nga am bëgg a am un objectif de croissance mmh. croissance endogène il faut que corruption bi nga apporter une solution du yomb nag parce que tu peux pas partout. Mm-hmm. ku nekk na nga nekk sa gendarme bopp. ku nekk fi nga toog nekkal sa OFNAC bopp. ku nekk fi nga toog nekkal sa cour de compte bopp waaye dama ne corps de contrôle bii rëy bii gën a am solo mooy yàlla. Mm-hmm. mooy corps de contrôle numéro un. dara du ko rëcc. dara du ko rëcc kon. man je di képp ku ñu dénk ndombal tànk y compris Salihou Keita képp ku ñu dénk ndombal tànk bu jeexee na nga rendre compte mais yooyu les corps de contrôle nañ def seen liggéey nañ def seen liggéey. ñoom kay def nañ ba publier rapport rapport yu wone ay mbir yu doy aujourd'hui par exemple j'ai reçu la cour des comptes au niveau de la direction générale du CICES e nous avons reçu la cour des comptes ok audité nañ la audité nañ parce que mon prédécesseur a été discuté on a vu le rapport yi wax mais ba ma ñëwee j'ai trouvé trente recommandation mais bu ñu ñëwee di def suivi des recommandations mais nous avons un satisfecit de la cour des comptes yëpp nga appliqué bon vous savez euh, du euh, lépp mais on a eu euh, satisfecit boo xam ne pratiquement on a appliqué les vingt quatre pour les les vingt quatre sur trente on sur les trente ah. am na loo xam ne ñu ngi ma koy laaj mais du ma ko def xam nga la on me demande par exemple de licencier un deux agents yoo xam ne ay faute de voilà yooyu duma ko wax sur le plateau euh, mais du ko def Cour des comptes xam nga lu du ma ko def ñoo la recommandé waaw voilà ko recommandé xam nga ma ko def hmm. parce que nit nga dindi ko fu muy liggéeyee sànni ko si mbedd bi njabootam lay xalaat hmm. yu jigéen ñi mën nañ defi leneen ñu góor ñi mën nañ defi leneen kon man j'ai reçu même une délibération du conseil d'administration du CICES e pour def un toilettage du personnel je refuse mu ko def. Ah, parce que y a social. mais bu fekkee loolu baaxul ci CICES nag. waaw xam nga xam nga lu tax. Euh, c'est tam boo bëggee jiite avec les sentiments parfois. non non question jiite avec sentiment. c'est-à-dire que ku def faute lourde am na faute yooy def war nga ko mën a sanctionner mais moi je je dinaa ko remonter. à l'autorité jox ko une voilà voilà jox ko une seconde chance ñu toog ñu waxtaan. et puis nit ki dina def benn faute à un degré mais boo waxtaanee ak moom mais dina. comprendre dina comprendre quoi lan moo nekk ci ginnaaw voilà donc yooyu moi je pense que. yërmande aussi dafa am. dafa baax waay yërmande dafa am c'est pas une question dañuy gérer avec sentiment moom laa lay wax nii man bu liggéey jotee je n'ai plus d'amis mën nañu mën nañu nekk xarit on s'assoit on discute on fait tout ensemble. Mm. mais dès qu'on arrive au lieu de travail tu n'es plus mon ami. liggéey rek liggéey rek. d'accord donc yow amoo problème de gestion. Euh, non du ma wax aw ma problème de gestion aussi ah parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. rapport yi. non non moom laay wax bon léegi ñëw nañ fa mais moom laa lay wax nii sont venus mais on a eu un satisfecit et bul fàttali Saliou Keita je suis docteur en marché public. donc am na yenn erreurs yi doo ko def. dinaa moytu daal. dina am moytu loo mën alors rapport itam wane na nag ñoo xam ne malheureusement meluñu ni yow parce que épingle nañ leen ci ay vraiment manquement yoo xam ne dans la gouvernance yu doy waar qui laisse vraiment croire à des détournements de deniers publics y en a d'ailleurs ba ñenn ñi sax di wax ne président dafa war a dem maintenant après la publication vers des poursuites d'accord nga ci loolu ñu topp ñi luubal yóbbu leen kaso xam nga lu lu lu loo xam ne moomoo ko ñëpp a ko bokk nga ne ko duñee sañ-sañ bi ngay am pour def naka su dul noonu sañ-sañ boobu la état war a am pour nga delloo lu ñëpp bokk moo tax ma ne la tey jii man quand je prends le cas du Cissé damay remercier encore et je ne cesse de remercier mes collaborateurs parce que liggéey bi du yow rek yaa koy def. dëgg la say collaborateurs ñooy ànd ak yow. Mhm. moo tax mu ne on a besoin de de collaborateurs loyaux. Mhm. intègres. moo tax ma koy ñaanal la président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. ñii mu jàpp ni ñii samay collaborateurs lañ. nañu doon ay des collaborateurs intègres et loyaux post yu ñuy occupé ñu bàyyi xel yaakaar bi Sénégal am si ñoom ñu bàyyi xel fan na ñu jóge ba yegg si ñu suturaal le président Macky Sall euh, le président Bassirou Diomaye ñu rafetal hmm. seen wërsëg yàllaa ko yàllaa ko yor yàllaa ko yor moo j'ai des amis yoo xam ne bu ñu ma waxee sax damay tiit ma ne mais ñii ban ñii ils sont dans ndax la liñ lay digal c'est pas bon waaye sa gars yi ñu fi nekkoon def nañ nii yow it xoolal mais je ne le pas parce que gëm naa ni je un jour man keese si sama bàmmeel hmm. loolu da lu jar a bàyyi xel la. non c'est important. Mm-hmm, lu jar a bàyyi xel la alors les premiers pas du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre yaa ngi koy junj sànq am na yu bare bari yoo xam ne teg nañ ko bon bi ñu ñëwee déjà les visites aux chefs religieux. tukki yi mu ah, def ci les pays voisins yooyu yëpp c'est vraiment dans le cadre. oui vous savez notre euh, Sénégal c'est un pays de religieux. et nous avons euh, les catholiques les musulmans. boo xoolee c' est quatre vingt dix neuf pour cent de la population. mais munoo fi gouverner munoo fi def lenn sans pour autant ñooñu nga nga bàyyi leen xel. moo tax tey maa ngi rafetlu. tournée bi nga ak liñ leen doon waxal yëpp ak liñ leen doon waxal c' est à que moo tax xam nga gis nga nit ki. boo ko xamul noppil booy seen nit seen ko rek mais xamoo ko noppil quoi. koo xamul de ko les gens eh. ont ils ont diabolisé. yow bokk ci yooyu mosoo man dugal sama page Facebook. tu verras jamais ma bind benn benn yoon mosuma ko bind Ousmane Sonko. demal sama page te mosoo ànd ci action yooyu. non mosuma si ànd déggoo ma ne leen on s'oppose mais de façon républicaine. nu mu gën a man loo xam ne nanguñu ñu ma koy def bugguma ko ma koy def. mais dugal sama page Facebook vous êtes journaliste. musuma def benn. maa ma def benn publication. di wax ci Ousmane Sonko. man lenn moom moo tax ma ne la man damay ànd ak nit par loyauté. loyauté buy taxoon ma li taxoon ma ànd ak Amadou Ba di ko jàppale loyauté boobu nekk naa si de A matal naa ko moom mot sëg pare naa ci kon li am solo mooy nañu. rafetal rafetal bañ a yàq. il faut s'opposer de façon républicaine parce que état kenn du ko saam si mbedd. dëgg état kenn du ko saam si mbedd gis nga booy opposé wu de façon dans l'anarchie mhm. nga jël état nga saam ko si mbedd bés bu ñu la ko dénkee di nga bëgg a delloowaat état fi mu nekk fekk yàq nga ko parce que ñi ko ñi war a considérer état mooy le peuple mhm. l'état c'est l'émanation du peuple mais bu fekkee tey jii peuple bi dem nañ ba ba weddi état faalewtuñu état di nga bëgg gouverner. da ne Sénégal foofu la toll. non non non j'ai pas okay. dit ça. ok dañuy waxtaan moo tax ma ne la loolu sama gis-gis la moo tax ma jàpp ni ku nekk dans l'opposition. Mm. il faut que nga nekk un opposant républicain et Sénégal a besoin d'une opposition forte. opposition forte mooy tax le pouvoir en place bàyyi xel ci critique yi di gën a ñoñal. seen i seen i seen i seen i seen i mm. liggéey mm. te loolu aussi am na am na solo kon il faut qu'il y ait une opposition